r bi euh, loolee nag indi ay jàmmaarlo yoo xam ne ay lacrymogène euh, daat fay euh, jolli quarantaine ont subi aujourd'hui les premières épreuves des examens suite à ce faible les autorités universitaires ont décidé d'ajourner les examens wet librairie Créel Afrique nga xamante ni y a une forte présence des forces de l'ordre tàkk der yi moom ngeen di seen noonu ak seen grenade lacrymogène ndax suba ba léegi ñu ngi jéem a disperser maanaam étudiants frondeurs yi jéem a maanaam maintenir Euh, ordre bi euh, waaye ba tey doon na lu jafe taliban ngi noonu fees dell ki xeer jàmmarloo bi euh, mi ngi takkar naase indi nañ renfort takk deri ñu ngi noonu indi renfort indi indi indi nañ renfort par rapport à la situation pour jéem a xool naka la ñuy jéem a organiser mbir mi naka lañuy ñuy jéem a non non dañuy kii rek ma fi mu ne nii on peut pas avoir accès ci rond-point entrée principale université Cheikh Anta Diop donc nee na dañ ko euh, barré mais sans pour autant nous donner les raisons c'est juste que maanaam à rappeler dari di wax dafa mel ni dañuy bëgg dérouler benn plan d'action pour jéema a xool naka la ñuy jéem a fermer périmètre bi noonu waaw Ablaye ñu xool lan moo bëgg a am ci li ñuy séen nale am na luy bëgg am fële nale donc ñu ngi évacuer étudiants yi benn par benn on est en train d'évacuer les étudiants ah, donc ñi bëgg a jëm sens bi moom c'est tout un problème même nu en tant que presse on a du mal à avoir accès fële ne la nga xamante ni euh, mooy yoon wi jëm euh, hôpital euh, Fann ci rond-point bi nga xamante ni moom mooy porte principal université Cheikh Anta Diop. Euh, donc à rappeler que étudiants yi tey ñoom ñoo xëyee tey mouvement d'humeur euh, ci xibaar yi ñu am nee nañ ab soutien lañ bëgg defal seen naataango yi nga xamante ne yaa ngi noonu takk der yi daal leen téer lan lañ def xamuñu ko waaye mel na ni ndax danoo bokkoon ci ñu doon jàmmaaroo ak ñoom pour le moment ñaari étudiants yaa ngi noonu étu euh, takk der yi daal di jàpp donc pour le moment deux étudiants sontarité arrêtés fi mu ne ni ñu ngi ci loxo takk der yi nga xamante ni ñoom ñoo doon dóor lacrymogène ngir eh, baaxoo waaye nag lii du guléet mu am ci université Cheikh Anta Diop ndax université miin na intifada miin na fronde miin na jàmmarloo li ñu tuddee échec yi ñu am yu ñu bëgg defal seen naataango yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk université Alioune Diop bu Bambey voilà deux étudiants sont pour le moment euh, voilà donc interpellés par le force de l'ordre ñu ngi noonu ñoom ñaari étudiants yi ñu téye euh, daal leen toogloo ci suuf waaw kenn kii ngi sol débardeur keneen kii daal di sol chemise bu bleu boot saagam voilà. lañ ñetti étudiant donc Ablaye mi ngi ma koy euh, leeralal euh, ñoom lañ jàpp ñu ngi noonu ñu daal di téye foofu voilà ñu ngi noonu di leen yóbbu wala lan lañ def euh, xamaguñu ko waaye mel na ni kenn ki jug na ñu ngi koy yóbbu pour le moment. ba tey échauffourée yaa ngi continuer mi ngi tàng policiers yi ngi continuer di dóor seen grenade lacrymogène image bi fi mu leen di woon noonu ñu xam leen ni on a du mal à y accéder parce que takk der yi eh, mais ñu kenn am accès foofu te mboolem ñi fa nekk ci ay nit ñu ngi leen di jéem a dégager di leen jéem a évacuer xam naa dañuy jéem a xool nu ñuy contourner jéem a jaar ci beneen koñ bi jéem a xool euh, au niveau des euh, étudiants ñoom ci seen wàll euh, naka la ñuy doxalee fi mu ne nii ndax takk der yi boobu ba tey ñoom lañ leen di wan ci seen i matuwaay yi ñu jël ci ay casque ci ay grenades lacrymogènes yi ñu leen di dóor mais étudiants yi gis nañ ni am na yu ñu taal ci biir campus wala Ablaye voilà dafa mel ni gaa yi ngi doon di avancé ndax dañuy dugg ci biir xamaguñu waaye étudiants yaa ngi sànni xeer voilà ñu ngi sànni xeer étudiants yaa ngi sànni xeer ñu ngi doon di repouser les forces de l'ordre forces de l'ordre yi nga xamante ni ñoom ñooy euh, gérer fi mu ne nii euh, situation bi ñoom sànq dañu bloqué ndax nee nañ ñu mënuñu fa am accès pour ñu jéem a xool lan lañ fi jëlee euh, comme xibaar pour le moment ni gaa yaa ngi noonu di jéem a assurer ordre bi ndax étudiants yi danoo mer waaye teewul takk der yaa ngi jéem a maintenir situation bi par rapport ak seen forte euh, maanaam mobilisation ak it cette forte présence euh, ci lieux yi comme d'habitude li ci ëpp nag ay mbirum bourse mooy faral di waral grève waaye tey nag da soutien goo xam ne étudiants yi ñoom dañ koy amal ci seeni i yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk université euh, Bambey maintenant c'est l'occasion ci direct bi tamit interpellé waale autorité ci situation yi nga xam ne tey jii nii euh, sunu njàng mi mu kaw mi euh, daf koy dundu ci wàllu coono daf koy dund ci wàllu jafe-jafe ndax gis nañ ñu tout le temps il faut qu'il yu mel nii ci réew mi te yéen a maanaam mën nañu xool nu nu koy lijjante voilà takk der yaa ngi noonu di mobiliser wu. indi nañ euh, ay jumtuwaay yu am solo par rapport ak situation bi pour jéem a maîtriser situation bi waaye gis nañ ni fi mu ne nii ñu ngi jéem lu ñu mën ci mobilisation gu am solo bi par rapport ak situation bi voilà. defe naa Ablaye ñii ay kanam yu ñu miin la ci waxtu wu ne mel na ni xew-xew yi faral di am euh, ñoom la ñuy dajal voilà doyen doyen doyen moo nekk noonu voilà voilà wala wala doyen doyen ngi noonu di évacuer. doyen ngi noonu di évacuer voilà doyen ngi noonu di évacuer gars yi wala wala voilà ngi noonu di évacuer étudiants yi pour jéem a fexe daal waaw mais doyen lu xew mbaa jàmm. Euh, jàmm rek xam nga étudiants yi <laughs> bi mi ngi. la situation sous contrôle a il n'y a pas eu de dégâts. non non non non non les jets de pierre bon c'est toujours. voilà defe naa doyen moom miin ngeen kanamam ci suñuy direct ci waxtu wu ne rek intervention pour jéem a maintenir l'ordre comme nun ko xamee donc c'est des forces de l'ordre ils essayent di maintenir ordre bi voilà donc pour le moment nii. Euh, Diop euh, doy na waar nag. waaye nag temple du savoir bi mujj wëlbatiku doon bërëbu xeexukaay ci ay jàmmaarloo Euh, xaw na doy waar voilà donc loolu de ay grenades lacrymogènes yu ñu sànni xeet gaa ngi noonu di dégager ñenn ñaa ngi daw ngir wut fu nu làkku bu ngeen seeni ci biir université bi étudiant yaa ngi noonu nangoogu nu dellu gannaaw nangoogu nu bàyyi ngir jël seeni matuwaay. nañ jamono yi ñu génn yee salaat gi fi am gis nañ jamono yi ñu génn ni nu ko organiser waatee defaraat ko waaye mel na ni situation bi tey ak lii fi am ci yàqu-yàqu ak li fi am ci jàmmaarloo. xaw nay bëgg a jox université bi beneen image bi nga xamante ni euh, euh, miinuñu ko ci université bi gannaar bi ñu ko defaree ba noppi. waaye nag bërëbu xam-xam gii di université Cheikh Anta Diop mérité na leneen lu dul mu doon bërëbu jaamarlookaay. ci lii fi nga xamante ni fan yi gis nañ yeesal giñ ko yeesaloon ba ñëpp di ko rafetlu ndax bërëbu jàngukaay dafa euh, jumtuwaay yi nga xam ne gars yi jël nañ ko. voilà gars yi ba tey ñu ngi continuer di sànni xeer ah. ba tey ñu ngi continuer di sànni xeer ñu ngi leen di woon beneen boor bi nga xamante ni moo jëm hôpital Fann daan leen ko wax waaye pour le moment ci xibaar yu ñu am loolu lañ leen mën a waxagum ni loolee li waral tey jii nii mouvement d'humeur bi ndax li ci ëpp dañ daan jàpp ne xëy na problème de bourse la woon waaye tey euh, mel na ni li fi am yéen a ko gisoon doon noonu seen Euh, pour essayer de maintenir euh, la situation, mais les étudiants continuent à riposter. jeunes euh, s'enchaînent les étudiants ci seen boor ñoom tamit ñu ngi jéem a riposter ne pas tirer n'importe où et n'importe comment donc il faut une gestion rationnelle des grenades te na ñoom it bu ñu apporté wul seeni soutien par rapport ak situation bi mel na ni euh, da ñu fàttali leen euh, yéen ñiy doog a dabe ci direct euh, Sénégo bi nu leen ko waxee woon bi lan la def xamuñu ko am na ko nu jàpp mi ngi noonu ñu dugal ci auto police yi am na ku nu jàpp mi ngi noonu ñu dugal auto police yi voilà il y a arrestation il y a arrestation pas pour le moment wala voilà mi ngi noonu ñu dugal ci auto police bi wala indi nañ ko dugal ko ci auto police bi en tout cas indi nañ ko ci auto police bi lan la def xamagun ko voilà voilà auto police bi ko jàpp mi ngi noonu di tourner pour delluwaat voilà donc am na voilà mel na ni am na nit ñuy ñëw sunu gannaaw di daw di muuroo seeni saak ngir jéem a rëcc wala ñu ngi noonu di daw voilà ñu ngi noonu di daw ku ci nekk yaa ngay jéem a xool nooy rawal. Euh, ok ok léegi man maa ngi lay woo léegi nga wax ma yéen à votre niveau naka lu situation bi demee ci biir dégg nga. d'accord léegi léegi. voilà lan moo xew njegaan ba ngeen xëy di jaamaarlu ak takk der yi lan moo xew njegaan nga dikk ñu an détail ci li xew. Euh, bokk na tamit day mel ni ñëpp mhm. na ci li ñuy ñaxtu moom ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci université bu Bambey. Mhm. ok xam nga dèjà bu ñu amatul amicale ñoom dañu. Euh, étudiants yi. kon mbokk yi euh, lii mooy tënk xibaar pour le moment li fi amagum fii ci université Cheikh Abdoulaye ñaaw na te nii lañ leen mën a soutenir ngir def alerte ngir kilifa xamante ni euh, moom la ñuy euh, kaas du dara lu dul wala euh, voilà voilà voilà mel na ni lacrymogène xet baa ngi jege si waaw ah, yooyu yëpp tamit c'est les c'est les c'est les aléas du métier souvent on est confronté à tout un tas de situation yoo xam ne des fois nga jooy tour rongoñ ndax lacrymogène yi dafay saf waaye lépp rek sant yàlla ngir dégtal leen li nga xamante ni moom moo fi am ci wàllu xibaar kon mel na ni étudiants ba tey nangoogu nu noppi étudiants yaa ngi noonu du ñëw euh, ngir woote jàmm mel na ni euh, kon nu ñuy demee ci cappaandaw gi El Malick waaxul gaaw jëlal ñu image yooyu noonu euh, les étudiants les étudiants commencent à appeler maanaam à la paix on va essayer d'avancer Abdoulaye on va avancer étudiants yi nee nañ ñoom fi mu ne nii voilà donc euh, voilà jàmm la noo woote Abdoulaye yéegal noonu foofu étudiants yaa ngi noonu du ñëw en nombre euh, lan moo nar a doon réaction takk der yi xamagunu waaye ñu ngi noonu du ñëw euh, mel na ni noppi nañu ci xeex bi mel na ni noppi nañu ci xeex bi mel na ni noppi nañ ci xeex bi on va essayer de voir euh, donc étudiants yaa ngi noonu Voilà, Ablaye, on va avancer. On va avancer. On va avancer. On va avancer. On va avancer. On va avancer. On va avancer. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent Voilà, les étudiants donc ont formé un bloc ci devanture université Cheikh Anta Diop bi. Le message qui est lancé par les étudiants, ils veulent discuter. Ils veulent la paix. Voilà, ils veulent discuter. ils veulent discuter. Les étudiants sont prêts à discuter avec les forces de l'ordre. Finalement, voilà, les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. Les étudiants disent qu'ils veulent discuter. discuter avec les Oui, mais actuellement, monsieur le commissaire. Nous voulons aussi une lumière, une enquête sur la mort de C'est pas au moins rester là à, à parce ça pas. Mais on, on, uniquement ce qui se passe à Bambay puisse se régler au moins dans le plus possible. Et c'est c'est ça qui nous, qui au moins se ici au moins discuter de la situation. Et actuellement. Bon, c'est. Voilà, voilà. voilà donc voilà ñu arrière ok ok. Pour ça, il a pas de problème. J'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai entendu votre doléance. Mais c'est pas de cette manière-là que vous devez exposer votre doléance. C'est pas en jetant des pierres. vous pouvez vous faire entendre autrement, mais pas casser les biens appartenant à autrui. Non, voilà, ce donc j'ai bien perçu, j'ai bien reçu votre message. Oui. Vous pouvez retourner chez L'autorité, l'autorité, l'autorité recevoir votre SMS, Je vais tout envoyer un SMS pour dire ce que vous revendiquez. Tout ça. Mais pour le moment, rentrez chez vous. Mhm. arrêtez les jets de pierre. Merci. Parce que sinon, vous mettez en danger les personnes et les biens. Oui. vous êtes assez responsable, vous êtes des étudiants, vous n'êtes pas n'importe Vous comprenez Donc rentrez chez vous, restez calme. L'autorité va recevoir votre message. ma parole. Mais actuellement, il y a une chose, une chose qui reste. Ça arrive qu'on avait capté nos éléments. Non, tout ça, il a Donc, je vais régler ça. Voilà, la, liberté, tout ça. Je vais régler ça. yooyu ñoo ko déggandoo euh, finalement ils ont trouvé un terrain d'entente euh, le message du policier est fort c'est un message très fort euh, ce n'est pas de cette manière qu'on doit pouvoir régler ou trouver une solution voilà mhm, voilà voilà donc defe naa gars yi trouvé nañ terrain d'entente nanu arrêté mbir mi voilà nanu mbir mi terrain d'entente qui nous, ce qui c'est la situation que nous déplorons tous qui se passe à Bambay. Actuellement, la situation qui se passe à Bambay, tous les étudiants, euh, tous euh, les, universités du Sénégal le déplorent. C'est ce qui nous pousse au moins de descendre sur le terrain pour montrer aux autorités que ce qui se passe à Bambay. donc c'est important, le message est clair à Sénégal. Ci tënk rek euh, suba ba léegi yéen a ngi gis ni ñu ngi leen doon amal direct fii ci université Cheikh Anta Diop lan moo ko sabab. li ko sabab mooy li xew démb ci université Alioune Diop bu Bambey ndax gis nañ ne ay takk der dugg ci biir enceinte universitaire ba euh, jaamaar la fa ak étudiants yi ba ay gaañu gaañu am fa ay interpellation am fa li ko sababoon mooy examen bi nga xamante ni moom moo fa amoon lu toll ci deux cent vingt étudiants yoo doon def seen examen waaye finalement une quarantaine ñoo mujj def seen examen ba finalement danoo mujj ajourné yëf kon policiers yaa ngi noonu di def euh, retrait seen dispositif yi nga xamante ni seen oto yi wàccee woon nañ ko fi université Cheikh Anta Diop ngir jàmmaarloo ak étudiants yi mais c'est important de le rappeler que finalement trouvé nañ terrain d'entente <coughs> mais le message du policier est mooy que ni euh, mën ngeen <coughs> ñaxtu mais <coughs> sans pour que ngeen euh, maanaam euh, ñëw di kaas wala di am nu ngeen di wala voilà yaa ngi noonu di def retrait il y a le retrait des policiers les policiers commence à faire leur retrait voilà ñu ngi noonu di dem oto kayma bi euh, defe naa sànq le message de policier c'est un message fort il y une façon de se faire entendre sans pour autant que ngeen sànni ay xeer kàddu yooyu noonu la maanaam kenn ci takk der yi yóbbante étudiants yi ñoom nee nañ pare nañ ci mbir mi incha allahu rabbi dañuy arrêté waaw kon baax na kon tàggatoo gaa ngi noonu